jërë ngeen jëf mbokk internet yu ñuy suivre seen site d'information Sénégal 7 ginnaaw bu ñu leen nuyoo bu baax a baax di leen ziar tey nag dañoo ñëw fi nga xamante ni moo di Pikine particulièrement kër Falaye Baldé ci combat bi nga xamante ni moo dox ci diggante Gris Bordeaux ak Ama Baldé mu war a am le 30 juin fële ci arène nationale Albourakh Events mooñ ci woo euh, démb moo ne newoon dernier face face to face ñaari mbër yi euh, weccante nañu ay kàddu tey ñu ñëw fi nga xamante ni mooy kër Ama Baldé pour daal di dégmal ñi nga xamante ni moo di ay fantam ay sponsor ay supporters am naka lañuy ñuy waajee eh, combat bi. ñu ko doon séntu ay weer mu des ay fan jour ji mooy set diggante eh, Ama Baldé ak Gris Bordeaux démb moo newoon seen dernier face to eh, ban jàngat la jeex. waaw maa ngi nuyu ku nekk sa tur sant sant na na ah, salaamaaleykum mbokk yi Sénégal mbokk internet mbokk ñëpp na mm-hmm. ah. waaw. waaw jàngat bu ma def démb jàkkaaroo bi moom maanaam lum ma war a wax si sénégalais yi moom maanaam ñun pare nañ quoi waaw ah, pare nañ jour moo maanaam doon yàqandi maanaam suba nekk dimanche. suba na nekk dimanche man Djiné bu Ama man loolu laa yaakaandi dof bu Pathé Baldé kak bu Pokola man loolu laa yaakaandi suba na nekk dimanche affaire bi xolo jooy ko benn jooy rek dem suñu yoon xam nga ñaax pexe moo tax ñu jëlee Gris Bordeaux barki seen Bamba mu wax bu yeegi dofoo ko moom ñaax pexe moo tax ñu jël Gris Bordeaux bu fonkee combat bi benn yoon ñun fonk na ko dix fois barki alaaji Fallou Mbacké ah Gris Bordeaux daaw la waa barki alaaji Fallou Mbacké mais il raison barki seen Bamba raison ba pare Gris Bordeaux muy toog wax boy yi yow daan fii fas ñëpp maa la kii yoo yaa leen ëpp doole mais man ëppoo ma doole cee Gris Bordeaux <laughs> bàyyi ba dimanche di nga xam booy bi wala moo la ëpp doole dina la dóor dina la duma dina la daan incha allah. ban ban Ama Baldé lañ mën a xaar. Ama Baldé bu bees bu bees taax Ama Baldé nga xamante ne ne liggéey na lépp laa lay wax baay. yaakaaruñu si benn social. Sénégal yéen laay waxal yaakaaruñu si benn social. c'est le travail qui paye loolu lañ yaakaar suñ doole bi suñ doole liggéey bu ñu liggéey lañ yaakaar yaakaaruñu si benn Serigne Serigne ay dulkat leen parce que chaque jour ñi fen chaque dimanche ñi duul Serigne yéen laay waxal Sénégal chaque dimanche am kuy duul Serigne bi da lay ngemb yóbbu la ne ma yaay daan ñi daan la Serigne bi duul waaw nice mais ñun yàlla lañuy yaakaar quoi rabi sama waati wala arri ak liggéey kese ndax lu ñu moom dimanche dañ koy jëli lu ñu moom ñun waa Pikine lu ñu moom dimanche dañ koy jëli sur nii wala si nee waay waay waay waa Fass man la sam waay moom loolu seen sarax yomb na waa baay set mbuus ndox yu juróom la set mbuus ndox yu juróom sachet ndox yu juróom yi set sachet la set set la set ngir wóor tàngul waa baay tàngul ñaangul. bilaay ñun maanaam ñun suñu bët yi maanaam teguñu ko si combat bi quoi beneen combat la ñuy teg suñu bët yi. dëggu ma il a travaillé travaillé na ma boo déggee moom il a travaillé travaillé ah loolu jeexal na wax gi ama dafa liggéey entraîné il est prêt pour tous les gauche et droite. ama du arrière te Gris Bordeaux du arrière combat bi dina neex dina saf. bu sulee seen xeex booy bi booy bi la booy bi bàyyi yow booy booy bi ñi ñi waaye ñu muy daan laa lay doole ñaari yoon bàyyi barke Alaaji Fallou Mbacké waaw xanaa seetaanoo claf boy bi ñu muy daan foofu laa lay wax ñuy waay yow tabatin sax moo doole taama dafa jooy si tabatin benn jooy la koy jooy si kawam xeexam moom duma daan ko te loolu la nar def sa waay tamit xeexam moom duma nax ko daan ko ah diguma mi ne nañ ko ba léegi ba léegi gisoo fii laa lay wax kenn son yére olofam ba léegi jusqu'à présent ñëpp laa lay wax duñ ko lem laale lay wax dugal ko si biir armoire bi. ah Paare ngay dugal dëxin ku waa di jéego ah, <laughs> moom pare nañu si lépp waa yi woo te ñëpp nañ ñu ñoo si fair play di ah, dem ah daan Gris Bordeaux ñibbi si si jàmm waa fair play kay la ñu woo ñëpp na ne supporter ñëpp yu ñëw si ak teranga bàyyi mala sam waay ñu gunge leen daan leen mala sam waay moo loolu mais lépp jàmm non maanaam ñu gën a bàyyiwaat seen xel quoi maanaam combat bi du combat bu nga xamante ne ne ne maanaam gis nañu quoi maanaam maanaam jaaxaluñu quoi combat bi sim nga combat bi du combat bu nga xamante ne waa Pikine dinañ fi nekk fii di xel ñaar wala xel ñett si ay dégg combat bi yëngaluñu tey yàlla dëgg la bëgg bu ñu daanoon Modou Lo tey cun fukki xel xalaatu wu bëri ak sa waay comprendre bu ñu daanoo Modou Lo suñ fukki xel laa lay wax xalaatu wu bëri ak Gris Bordeaux moo tax ma ne combat bi taxuñ jug ñun xam nañ lu ñu tax bi moom la ñuy du komba bi lañ wër de déggoo ma de mbaxane bi lañ wër mbaxana bi maanaam ñaari yee que le meilleur fee <laughs> ñaari yee. face waaw dem nañ si jàmm ñibbisi si jàmm wax fa kàddu yu di seen am rafet waaw. état physique Ama Baldé nag gi am mais instant état physique bi ñu jox nii contre ah, nañ ko de. billaay wallaay bu doon suba suba suba pare nañ bu doon suba suba suba ama ah, pare nañ. billaay wallaay. lim indi contre Modou Lo ak euh, lim nar a indi contre Gris Bordeaux. maas bi yokku na ama ah, instant yii nii nii ama dafa dekku defaruwaat dafa jekkuwaat boppam bu baax a baax. mbër yoon la boo nekkee si ay jafe-jafe après yaay lël sa bopp defaruwaat bu baax a baax a baax. waaw te am mi ngi sant yàlla bu baax a baax a baax defaruwaat bi mu defaru xam nga li ma la waaw mi sant yàlla bu baax a baax a baax waaw. te loolu giri attanu ko giri attanu ko de barki sëñ Fallou non attanu ko de xam bu liggéeyee ba xam ne. non champion la ndaanaan la xam nga li ma la xam nga li la. waaw mais dafa fekk koo xamante ne dafa pare quoi war a indi waaw. ama nii dafa pare combat bi ñu ko doon xaar ay di xaar ay weer mu des ay fan. Gris du Gris Bordeaux tamit fonk am fonk combat bi parce que boo gisee mu préparé nga xam ni Gris Bordeaux fonk na combat. ñun pare sax ñun chaque jour dañuy pare déggoo lu ñun xam nga non Gris lu mu bi ñoo ko gën a fonk barki sëñ Fallou ñoo ko gën a fonk. nga ñoo gën a soxla ama ko gën a soxla. ngir day xaar barki sëñ Bamba Gris bu jàkkaaroo pël bi dimanche nga xamante ne Gris Bordeaux mi doon wax ak Gris bi du benn de. ngir lan la. loolu du yeewu. am amul lu koy yee looy denc wala nga naan lii pour ama la amul. amul non non ama amul looy denc naan lii dama koy jëfalanteeg ama nga ñëw naan da ngay appliquer loolu amul mbër du ko def. ñun ama dañ ko xam bu baax a baax a baax ama biir géew doo ko dencal lu koy jaaxal benn njumte nañ amoon mais loolu garaawul de waaw dañoo sotoon waaw te yàlla dafa yem mais ama rek barki sëñ Bamba góor du taxaw si kanamam nga taxaw ak moom naan da ngay jëflante moom xalaatoo ko ko def doo ko def de non kooku déggoo lu ma la jàmbaaru Pikine la kooku ñun amatuñu mbër bu waaw bu gën a gëm ama dëretu Pikine kooku jàmbaaram barki sëñ Fallou du amul musul boppam gëm li mu doon waaw doom Fallaye Balla bi yàlla na ko yàlla defal jàmm barki sëñ Fallou billaay wallaay may ko ndam lu sedd guy ma loolu laa koy ñaanal nii. waaw le mooy lu bees tàkk ngeen di gisaat si am lu bees tàkk am phénomène la saa yu ñëwee nga xam ni lu bees indi lu waaw di nga gisaat si moom waaw. non tuus bi déggoo leen wala lu bees bi déggoo leen wala loolu dañ koy daaj dimanche incha allahu rabi non dinañ yow open bi nii rek bu ñëwee di la ñamal ñëwal mercredi eh, ba la fi kenn jiitu ah, ñëw si open presse bi ñu ñamal la si tuuti incha allahu rabi. Baye Fall waaw tey da ñëw de ah. waaw mooy yoon waaw mooy yoon. xalaat ñàkk la mooy yoon. mais ngeen di waajee le 30. bis moom incha allah yàgg nañ koo waaj. ba ñu jotee avance lañ ko doon waaj. ba nii nii nii nii nii li si des nii yàggatul dara li si des nii yàggatul dara de démb la woon dernier signature bi open press bi di la buñ paree si loolu laamu ji la pare nañ si ñaari côté yëpp bagaar pare nañ bëre pare nañ lépp pare nañ. mais en parlant de dernier signature bi démb ñaari mbëri ku ne yëkkati nañ kàddu ku yëkkati kàddu nga jàpp ne moom man euh, ban jàngat ñu mën a defal si signature bi démb. waaw jàngat bi jàngat bi weesuwul benn affaire ah yow koo xamante ne nii ah. xale bu ndaw la ak koo xamante ni grand frère la ah bi mu wéree yaagul Gris bi mu wéree yaagul Gris 300 volts moo nekk si yaram bi trois 300 volts moo nekk si yaram bi dañagul courant bu duggee si yaram gaawul dañ yàlla moo ko dimbale rek mais kon waxatuñ ko 300 volts bu nekk si yaram ama xale bu ndaw entraîné ñëw ak amel gaay bor bu mu war a fay daa am lu muy taxaw foofu di xalaat ama instant nii nii nii bon diis ama dara diisul si moom ama tawat tawat maanaam tawat moo jiitu sax juddu nit tawat bu nekkee si yow rek ne lim li mu wax ñëpp gis nañ ko ama ñëpp ñu ngi leen bu ma tawat bu ma tawatul woon du demee nii te loolu mu leen wax yéen gi seen jëm boobu journaliste xam ngeen ni ama li mu wax loolu moo am ama bu pare woon dëgg dëgg dëgg kon du ay ama giri sax du ay ama giri péng ah mu wér gisoo yow xanaa gisoo ama yow xanaa sàccoo ay yenn vidéo yu ndaw di gis yow si lagee ak yooyu leem-leem pour lan une minute trente secondes loolu sun alal la une minute trente secondes ama ah, yaa ngi koy dégg mu koy communiqué di la wax une minute trente secondes foo ko déggee si lengs fii o paaxo rek xamal ni pare na une minute trente secondes dafa gaaw foo ko dégg yow sa xel war naa teey lu ne xaj na si une minute trente secondes mais li si xaj yëpp ñun ñoo koy jëf ñoo koy indaale incha allah. mais derby bi du derby du derby actuellement nii du derby ama ah, daan na leen ñoom ñëpp. ñoom amatuñu leader boo xamante ne moom lañ mën a teg foofu faas Gris bo mi kenn du la wax diis du ray as kenn du la wax bi doo ni mu demee rek nekk magum làmb ñu bàyyi ko bi mais kon bu fekkoon am nañ booy bu gën a weex sax moo doon gën giri giri mi nañ waxante dëgg nag bàyyi mais gars yi naa mooy loolu kenn du la wax rek ay mbir ñoom ñëpp moo leen mën si une minute trente secondes ñoom ñëpp ñoom ñëpp lim la wax noonu loolu moo am de loolu moo am giri na dem àndal ay mbokkam ak yëpp gën a yokk doole lu mu am doole wala mu doole seen seen doole ñoom ñëpp ñu roof ko mu ñëw ah bu paree rek bay amuñu lu ñuy xalaat mobilisation démb yow xanaa gisoo open press bi yow open press nga non astafurlaa ngay dem dernière signature dernière signature yow nga gis loolu asumala ak làmb yow ah, làmb yow da ngaa faate làmb ama mënuloo gis nga ko lu gën a garaaw loolu mooy am ñun xaaruñu mbër bi ñuy bëreel mu indi de ñun li ñu war a indi dañ koy indi ñun dépendre luñu si beneen mbër bi pour ñu xam ne kii indi na wala indiwul ñun li ñu indi chaque jour ko jëfee si kàttu yàlla da nga koy gis chaque jour day yokku ah du am faalaay waa Pikine leen rek lañ leen di ñaax booloo doon benn kese kenn bu ñu dug bu kenn dugg suñu diggante nañ booloo doon benn rek bu ñu doolee doon benn ku taxaw ñoo la mën te loolu noonu noonu la demee nii noonu la demee nii gars yi booloo nañ doon benn incha allah dimanche nag ran vous esaat moom ku taxaw di xaar ama ah pour ànd ak moom esaat doo dugg loolu moom maa leen koy lancer message la moo fees mais stade bi ay gawar lañ boole de ay gawar lañ boole ay gawar yu mag laamu yi yëpp yëpp mun na nekk grand combat ma ma laamu yooyu noonu am yëpp mun na nekk grand combat waaye bañ a xaj stade bi day duy de stade bi gis ko nii rek de. mais mais boo xoolee comme ni nga wax laamu la. am bu ne mais problème dafa am ñoo xam ne nii nii nii kenn toofu leen am na ñu ñuy toofu. ñi ñuy topp nag ñoom xam nañ seen bopp di su ray aas mais am na ñoo xam ne leen mais gars yi nga xamante ni lañ leen booleel ñoo leen di sàkkataaleel image rek ànd ak ñoom liggéey booloo mooy doole waaw. làmb la nag mais duñu ay noon tamit waaw bu jeexee rek comme noonu boo ñaa waxee ko woon rek bu jeexee rek jeex na amul leneen waaw am leen jaamu gaan waaw comme noonu mais gars yi mbooli mbooli yeeg lépp mbooli mbooli ah ama ah, yéebe ah, ah kenn du la wax ah cee a ah, wala yow gars yi yëpp mafia bi yëpp ñëpp nañ ñëw ñu dem waaw waaw ñu àndal waaw mbaam bi loolu gars yi ñëpp daal ñoom ñëpp Alassane Djigo Alassane noonu mercredi moom incha allah du yomb mercredi rendez-vous waaw ñëpp ñëpp barke sëñ Fallou góor ak jigéen mag ndaw ay Paada Bale gars yi nag ñoo ngi ne la. joo maa ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar la jox say wàcc. baax ñu ngi leen di bu baax a baax a baax presse yëpp ñu ngi leen di ziar du yéen kese ñëpp ñu ngi leen di ziar gis nañ rafetlu nañ seen liggéey bu baax a baax a a baax a baax yéen ñun ngeen fi nekkal ak mbëri amateur yi ak mbëri seen liggéey ngeen def gars tamit nañ leen respecté bu baax a baax a a baax a baax xam na seen métier rek ngeen di def farul leen benn mbër mbër bu xew la ngeen demal ko waaw yéen tamit ñu ngi leen di sant bu baax baax di nuyu waa Pikine ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waa kër Falaye Baldé comme li leen wax rek fii kër gii fii mooy làmb ñëpp fii lañ jaar kenn mënu ko bañ tey la làmb neex ku nekk naan fii ak fii ak fii fii mooy làmb kër Falaye Baldé ñu ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp. démb mu nekkoon dernier face to euh, diggante Ama bale ak Gris Bordeaux ban jàngat nga am ci euh, kàddu ñaari mbër yi waaw ñaari mbër yëpp giri moom jantal grand la suñu mag la suñu lépp la suñu papa la mais bu dee contre mook ama magu ama la te ñun lu ñu am dañ koy jël si ama dañ koy yónni yàqamtu ko gis nga combat bi passé ni mu demee ñëpp xam nañ ne mbër parewul mais lamb di dinañ gisaat beneen ama balde kooku mooy lamb wax na leen ko comme lu ma leen wax rek kër Fallaye mooy lamb ama balde mooy jàmbaar mooy champion moo jaral tey ñi yenn fii di fanaan fii di ko dafa lépp loo xamante ne préparation lamb bëggee na ko noonu ñu joxee ko noonu parce que ñu soxla bu ñu ñëwee bu ñu nee amaayee yuuxu rek dañu koy indil lang si pii ko paako borom dëkk moom rek la ñuy topp amul leneen. dégg nañ démb si face to face bi Ama Baldé yëkkati ay ne euh, Ama ko yeb rek da ko fekk mu blessé. noonu la demee ñoom mais ñoom xam nañ sax Ama ku ko yeb yow xam nga lu mu demee baax kenn du leen wax lu muy indi lu na fàng kenn du ko jeex. lu muy indi ci làmb nit du ko indi ci làmb lu muy neexal ci làmb nit du ko neexal ci làmb ku ko yëpp da nga fekk muy nelaw mais Ama Yébi le retour de Ama yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal incha allah ba dimanche incha allah. ban Ama lañ mën a xaar le 30 juillet le 30 le 30 juin Ama bu ñu mën a xaar mooy Ama Ama bu bees tàq boo xam ne indiwaat na loo xamante ne nii ci làmb loo xamante ni le dimanche ngeen koy gis am na loo xam ne sax duñ ko wax. Ama mooy lan. Ama bees tàq loolu lañ koy nëbb loolu stade ngeen koy gisee dimanche incha allah le retour de Ama beneen Ama Baldé lañ si pii ko moom rek la ñuy topp dimanche incha allah. ñëpp mën a lañ liñ mën a xaar le 30 si wàllu bëre ci wàllu xeex. waaw Ama moom yéen wax na leen ko loolu amul xalaat kooku kenn du ko conseillé dof la moo leen gën a dof ba mil at bu nee prix day teg tànkam ñëw Gris Bordeaux la gën a xam loolu nee naa mën a xeex na taxaw dëggal boppam ku wet na laaj Malick ngir kan la fi daan ngir kan la daan jël kan la daan jël bu rëy kan la fi bëreel daan ko ngir ñëpp xam nañu xeex la yaakaar te ama daw loolu dóor ma dóor la rek buñ jàppantee laa ma jeex ñëpp xam nañ loolu ngir moom yaa ma gën xam kenn du la wax loolu du combat. derbi bi yenn ama wax na ko Serigne Ndiaye ak Maodo ak Lac amul kuy daan Ama Baldé amul kuy daan Kër Falaye amul amul amul lii du première fois. lii benn yoon ah yan xam nga làmb tamit. amul ku koy daan ku daan Balla Diouf foofu. ñaar ñaari la fa daan daan Balla Diouf daan Balla daan Papa Sow. yow jërëjëf loolu Tafa Gueye yow kenn du la wax. day gën a yokk rek. bu ñu yàlla defalee jàmm day gën a yokk gis ngeen combat bi passé nu mu demee ñun ak Modou gis ngeen nu mu demee. li nekk si biir sax moo ëpp li nekk si biir. foo toll Ama yee ngay eh, ngay ngay giri ñoo la mën aller retour aller retour ñoo la mën yow xam nga loolu sax da ngaa màgget yow fi nga dëkk sax supporté wu la fi nga dëkk sax supporté wuñ la oh yow faa sax bëgguñu la giri ñoo la mën aller retour aller retour ñoo la mën lañ si ko paako jal sax xalaat